lépp la ñuy waxtaanee dañuy waxtaanee économie danañ waxtaanee finance publique dinañ waxtaanee pouvoir d'achat dinañ waxtaanee liberté yi dinañ waxtaanee institution yi beneen condition bi Ousmane Sonko daf fi génnoon ci ab conférence de presse mu wax ni Amadou Ba Moustapha Ba ak Abdoulaye daoudi Diallo dañ daan mani dañ daan manipuler chiffres yi dañ daan falsifier chiffres yi Amadou Ba nee na na rapport boo xamante ni mooy wax loolu ginnaaw bi Amadou Ba waxee loolu nag Ousmane Sonko génn na ci page Facebook am tontu Amadou Ba mu ni mi ngi rafetlu. li Amadou Ba nangu invitation bi mu ko invité ñoom ñaar ñu jàkkaarloo ci ab débat public waaye moom li ko jaaxal mooy Amadou dafa xaar ba CNRA génn débat public bi mënut mënul am Amadou Ba di génn di wax ni moom nangu naa jàkkaarloo ak moom ci débat public bi Ousmane Sonko tamit gëm na ni li tax débat bi CNRA wax ne mënul am mooy loi yi nga xamante ni moo tënk CNRA dafa méngootul ak jamono Ousmane Sonko ba tey mi ngi moom mi ngi waat ne bis bu jàkkaarloog Amadou Ba dana wane ni moom ni mu yo bi ñu ko dénkee yëf yi na ko yoree woon du yoon du woon yorin wu sell waaye yorin wu ñaaw la te Sénégal yëpp danañ teg seen bët rapport yooyu nag Amadou Ba di laaj Ousmane Sonko mi ngi wax ni loolu danañ ko génne Sénégal yëpp maa ngi tegandoo ci seen bët.